man mon analyse est très claire. et Macky Sall sama am ma gis ci loolu. Karim Wade gouverne ni mentalité mentalité maanaam ni boppam di fonctionner. Mm-hmm. compatible na ak mu retrouver ak Macky Sall. Mm-hmm. gëw mm-hmm. parce que ba doon Wade rek ak Wade boppam. Wade retrouver Macky Sall depuis très longtemps. Oui, oui. mais tous ceux qui sont informés xam nañ ni li tax Wade ak Macky Sall mënuñu retrouver Karim Wade c'est tout. parce que Karim Wade sociologiquement ni mu formaté woo bokkul ak ni papaam formaté woo loolu moo tax donc Karim Wade man gisuma loolu ci moom gisuma mu retrouvé woo ak Macky Sall non non gisuma loolu la preuve am na souplesse boobu bu xam ne bu ko amoon jàpp naa ni ndege ni si fekk na problème am réglé na hmm. waaw vraiment loolu ñi informé ñëpp xam nañ ko hmm.